ki mu mës a defal lépp mi ci loxoom tamit bo dégg mu ne ëllëg yow man xiyaamee ku ma séddu da ngay fànne xadraama xal bi da ko bind da la daane wajjahali zulleeli wa nahaari xayra ima maham han bil tihaari ki nga xamné ne yiw yi nga xam ne yiw yiw suba yi ak guddii ak ngoon yi yëpp ci loxoom lay daw di ñëw bil leen tihaari day ñëw yiw yi ci amee yëpp maakulu ñu ne ko ak lan mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne وتل وتل بيوتي كلها مساجدة يا نافر من لا يكون مساجدة ملكني مالك كل جامع وكل مسجد من المجامع أنا على لو سنة سنة نيانا جولي جاكي جمعة يب دون جولي بلاقي يو ينفع أم يب منزلين تبع يلا وما تنا مكو معكم يلا كم يلا كم ما نروح دلنا يلا مكو معي دايلا بوجي سير موسى أك هيسا أك هارون déggoo ñu naan ko doon ngay mbóot ci doon ngay mbóot ci naari waa dëy ma mm. nga xam ne mm. ñu njëkk ña ak ñu mujj ñëpp Sëriñ Tuubaa da leen liggéey kon jox ko seen lenge yi ak seen ba ban yoroon jox ko nga xam ne boo bëggee Moussa boo bëggee ci yëfi Moussa faaw nga ñëw ci Sëriñ Tuubaa ndax da koo tudd mm. li tax mu tudd leen daa tawasalu ci ñoom ba noppi bëgg nii nga xam ne yàlla da ko yëkkati ba aw tëram du fay yow it sa tur bañ a fay Sëriñ Tuubaa moo gore jàngal jàngal yàllaahu bi Mustafa sindidi yàllaahu wa bi xalilika Ibrahima yàllaahu wa bi kalimika Moussa Salihil Qadim li tax mu leen tudd du loolu ñooñu dañoo am gërëmal yàlla di ay yonent ak njabootam di leen waxtaane mu bind ko ay xasaay ñu leen di tudd kon kookoo que wax na tamit ne mboolem koo leen gis muy sikki sàkk ko sikki sàkk ak na yii ma yàlla may nee na kooku li koy dal du doon jàmm te bu wutul sax léegi mu dee ndax léeg-léeg day tàng ndax yàlla la bëgg kenn di ko weddi wahaabu habli la wax mawaahibal kabir may yi lay wax wahaabu habli mawaahibal kabir waaye wa xut mu baari si foral lil xubur nee na kuy def te mooy dee ñu la dum hmm? waaw est-ce que ndax xalimtu yaqinan na ma looy kaani yi si xam laa hmm. ko wax bu hmm. àndal mu xaf faa man xalaat nii yar daw nee na Rasulullah ci boppam moo lekk la kon bañ Sëñ Tuubaa wóor ñu bëgg Rasulullah xeetu yonent bi mhm. nañ jël bay ci woow nañ def attention nañ def doucement ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mhm. daa set bokkut ak ñun ban bi ndax dane barra anil xuddus min kulli danas daa set ci ban bi ñun yëpp ci ban la koo fi dégg ci mhm. ban bi lañ ko sàkki waaye dane yàllaa ma setal ma weex tall nii mu weexee lu ko raw la weexee lii appareil bi ko génne rek ni mu sete ak setam mënee su koo xayma am xel mënu koo xayma ay bët mënu koo gis setu Sëriñ Tuubaa ndax setu yàlla gi ca la ko yàlla setal. Barra ñu xuddoosu. min kulli danas la wax min kulli danas bokkuma ak yéen ban bi waaw Barra amin xuddoos al xuddoos ko setal ñun ñëpp nag ci ban bi la bokk. moo war fa innahum wa in xasawka ya ahad. Mhm. li xaflatin lam yushriku bika ahad waaye wa innahum abdaanuhum laa taqdiru xalaa balaa'ika li fi nii ban bi moo am solo moo waral ñu lay moy damaa bëgg a jéggi leen daa am ndeysaan léeg-léeg buy wax sëñ Tuubaa man avocat wala tuwaaqisum bi maa qad ajramu fi sirri wal jahri fa antal akramu daal gis mu ne ko yow suñu borom da ngaa tëdd da ngaa màgg ay waay jaam yi bëgguma nga leen di bëggu bëgguma nga leen bëgguma ngay fayatoo ñoom da ngaa tëdd da ngaa màgg ndeysaan ji ne ko damaa bëgg ak yi ku nekk xam na ne moom la ñuy na day day dugg foofu baax na la waaye léeg-léeg da gis dañuy jàgg ko jubbanti ko waat Sëriñ Tuubaa képp la fi yàlla may mu tegu ci saraat oh, ah, ah, ta mës ta juum ngir nii yi gën a tuut kenn mënu koo takk di woon ala lazi lastu amilu abada mm-hmm. ila siwaaka haahuna sumaqada mm-hmm. mais mm-hmm. li tax mu doy da koy duri Sëriñ Tuubaa bu waxee waxam da koy duy ba mu fees jàng du waxu ordinaire loolu laa bëgg ñu xam daa mbolde wu ñuy misaal wu malaaka yi dóor nit ñi ëllëg mbolde wi digg naa nit ak ginne bu ñu ko jàppoon la woon di bëgg a yëngal mbolde wi duñ ko mën a yëngal ngir doole ju mu sëriñ bi bu bu bu jëmee ci sunu borom buy jëm ci sunu borom di wax ak moom mbolde woowa lu ko gën a diis lu gën a diis mbolde woowa ba ñàkk ko bëri ci bi maa gën a diis loolu boo dégg mu ko yàbbaru anta rabbi al wa falaa aqibu yaa haddul moom lay wax xakkamte yaa xakkamul baax yi di kaw li yeesaa faw si bi maa xaaba min bu traqué yi daw ni ko ni koy laale déggu dam teg fii nii da ko faa laal rek mu ne ko léegi loo bëggati ak kuy koy jàngati lu mu bëggati ma may ko ko antal basiru la sii mm-hmm. loolu la ko wax borom njëriñ lii xaada jumlatama li xtabta dunya wa uxra min kay la mooy nag ko kii fi toog tey ci mbégte lay dox ñëpp a ngi bëgg yëf yaa ngi dox sëriñ bi tamit nee na daa wax loo xam ne ci moom la ko jëme waaye man du ma ko jëmale ci moom sëriñ Tuubaa weesu na foofu ak borom daa wax ci middaa diine sëriñ Tuubaa wax nit balaa ngaa texe kenn da ngay lijjanti sa bopp ba noppi doog a lijjanti sëriñ Tuubaa laata muy woo murid daa am lu mu leen añale ba noppi doog a woote daa wax ne falaahi bi fadlillahi fii la wéyi jara nit ñi dal seen gémmiñ ne ko ah dégg la ma ngay daw de am nga dégg li wax fa falaahi bi fadlillahi parce que fii law yi jar bi xëy ri ni xarin duuna makkirin nag walaa xaw fi leeralal loolu yàlla daye sunu borom daa am alluwa yi ay alluwa ay alluwa du benn du ñaar du ñett du ñeent kenn mënta xayma alluwa yi nit ñu ko ci téere ne alluwa yi temps waaye baa daa leen li ci am importance mooy alluwaam ju mag ja préféré nga xam ne yàlla ne sama alluwa ji laa préféré mhm. fi leen bind texeeg Sëriñ Tuubaa bi mhm. waaye bi ñu ko bindee mbir bi daa taxaw li ci gën a yëngu mooy mbir bi daa koy jaraa nee na day daw di wër di wër falaahi bi fadlillahi fii lawhihi jara nee na ma ngay daw nee na bi xëy na mi xaar inna mais waaye nee na duñ ko raaf de. doon na lu ñuy duuna mag duñ ko raaf nee na kenn du ko raaf. wala duuna mag kenn nag nee na ay pexe yëngu fa xam nga léeg-léeg nit man ngaa fol ba jàng nga folle ko mën ngaa nekk wàllu ba jàng rek la waaye nee na foofa kenn yëngu fa ay pexe yëngu fa ba koy dindi duuna mag kenn wala xaw fi te nee na régluma ci li ma wax mbind maa ngay daw rek. 24 heures sur 24 mbir mi ma du taxaw jaraa ne ko wala xaw fi nga xam ne nga xam ne maanaam texeem gi day mel ni écran bu ñuy dawal naan euh, texeg sëñ Tuubaa gaa ngi nii daal di daw ci muy daw nii rek nga xam ne day daw noonu rek waaw day daw waaw écran sax boo ci dóoree dara mhm. mu taxaw mhm. bu courant bu coupé mu mhm. waaye lee àlluwa la day daw set gi day daw xam nga écran bu dóoree dara day bu ko rakku bi waaye fii la wi hii jaraa mhm. falaa hii bi fan lii lay mhm. xam nga sëñ Tuubaa li na li mu nekk lu wér la mhm. lenn gën taw leeral ne li sëñ Tuubaa ne mooy ku ko mësaan tudd di tudd keneen nee am teew ba xam ne bokkuma ku yëg bi oh. wa misaal yi fata bokkuma ci de ñu waxul lu sëñ Tuubaa bokkute kenn de moom moo taxaw ne eh bokkuma kenn maa fi ma ومثالي فاتا الا يقاد الله ما لم يكن معي ولا يكون ابدا لممكن لول داك لا مستني لول سنجي تدوتو نك نينا سما دك بي دي توبا تامي فو واي مانا جوجي ريو مو مانا جوجي لا واخ نينا بو دوج سي تي دك بي نا نعم، ملنا نعم، كو جوجي تي لند تاب تي لير وجهو ماسكن خروج من سلام باسكو لي نوري وك لا نو كل ما نزا لا واخ ndox mi sen mon tagadi wax day ñew la de guerre wa maskani salli min al fujjari parce que woom loolu xalal ahli bi ma am jeey ndox mi day ñëw buñ ci defee pexe day ñëw buñ ci ko wax fii ngay jaar nga ndox mi daa nekk ci lan fi ne ni projet projet ci la ne waaw projet day liggéey Serigne Touba mm. bëgguma ñu bëgguma di di di tàng sa waay Serigne Touba Serigne Touba mooy béy di sa waay Serigne Touba fii di kaw lépp wa masque di sàll mi nal fu jaay day digal bay di sëriñ bi parce que da koy digal di sàkkatam ñu mm. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. jàng xam nan a aw xaraf to aw xaraf to xarfa xustumu nan day ñëw mel na taxaw da koy taxaw la ko léegi tey laa bëgg léegi-léegi waxab léegi yow ma sama la xàq parce que du dem tey tey tey la ko nag. tey. bu hmm. demee ku tàmbali naqari. pour xel mu mat. ñi seen xel mat ñëpp nekk seen tubaab yi dimbali ba seen xel yi mat di leb leb. <laughs> Eh. da koy laaj tey. Hmm. nit ñi daa am projet. Hmm. ginnaaw xalifa tuntumaa tudd na ko bay wow dootu noppaloo ci fekk ndox mi ñëw maa la ko wax. yàgg naa ko moo wa maskani salami moo nga naan bi maa euh, im jaari <laughs> wam xalal ma jaari daa am procès ku tedd ki du ko diggal du koy def ndox mi day ñëw kum neex ak kum naqari ndax ki ko diggal dañ koo may lu xam may ko xam am na loo xam ne dana leen na loo xam ne du ko laal lii xaaba maa baax na wa maa lay sa yëpp moo waral Sëriñ Tuubaa kenn du ko yàq doo xam léppam kenn du moom damaa bëgg ñuy dugg ci loolu koo xam ne bu amee feet feet wu mu am nee na rasulullah ak saaba yi dañuy participer dañuy ñëw yaquudu lil muxtar wal alu maa moom njaboot gi ñëpp a ñëw nee na moom loolu du ñëw moom dama ne bàyyi fa Ababacar Omar Ousmane Aliou déedéet Ababacar day jug Ousmane day jug Aliou day jug saaba yi ak seen njaboot ñëw sihaab yi xiran yaqini tamaha leen da koy indil ay ay leer waa leen yooyu te nag màggal bu jot la waa léegi yow loolu jaaxalul yaquudu lil muxtaaru waaye wal alumaha moo ko wax de sihaabi khiran yaqini tamaala wax li tax nit war a ci ngirum Serigne Touba moy fam jere li yor ba ko kooku suñu borom du jox neena da daa déggaas yi ñëpp fa moo war a tey baax nee na daa déggaas yi ñëpp boo ko wax ci ba gànnaaw bi hmm. da madada man la yëg fa xale yi say jutta lii bi la axbaar li nga xamne ken gis ci mom da moo ma jox daa déggaas yi ñëpp bu ramab am da daa daa tëj bunt bi formé jëflanteeg moom mu génn. كم خبر لن بيع المنظم ولي خاب السر مخاب حنقيه المهدي لا ها ديكو من وحدة الوجوه اللي عيل قيل وقت خاب من على سال ولا عبد من وقت على كل شيء تقول ما من خاب من إلك يا خاب من دلوا ديك دك أجيني كنت دك جيني بيع ماسكي سرين جينا أنا بعد كلا كلا أبيع كا أنت اللي سيح قط ما أرجوه ده ما كنت جاك ما بدي أخونك دراف ما أرجوم يا من إلي حنة الوجوه day activé day jël ci alxuraan daal di ndax daal di te bu dóoree moo la ak këru bay di Sëriñ Tuubaa yi bu ñu ko tudd nii nga yaakaar la bokkul ak arab yi da koy dëy mooy wala udaani ka suxara suxara yi da koy dëy bi jaawatu la xërab mhm. bi laa ni ayatin wa taabat xorab yi la wax mhm. te way bi du damm du ëpp da koy peese yemale ko moo da وجه كتاب وهم يوم كتابتي لسادر ويا قوتا ادا ما في الله من يقبل الشكر لوجهك الكريم يا من يده لا تيل لن تري كون ننتهي كي مور تاكوي سانت ني موجي نيب كو ورا سانت ناخ الاسلام دا في نيكال اك دين ناخ نينا نيب خمنا نا باي لي كتو رسول الله لي لي نيكتو لوخو سكرته اسخصني saa a bëtën fii xanaa ñu bàyyi ji Rasulullah daf leen ne loo fakkala bi liggéey gi may liggéeyal sëñ Tuubaa moom ci lan daggee jëndi jullit yëpp hmm? waaw sëñ ko am jox la eh noos bi ñu lekk def attention lii rem dem la man maa ko wax hmm? man la engagé man sëñ Tuubaa ci laay wax lii rembat la ñun fayee koo gudu ku yor ay téere ba ñuy xutbaaka dinu misaal ka waar da ngay teey lii nga gis moo ne ñun lii tuur la la ko xitaab bi dee yàlla wax bi maa yoxit bu maa diya bi mu jaayantee yàlla ba yàlla ko lii laay jaay mun na ko ñaata la mun na ko temps mu jënd ko bi maa yi waxaade li ak rajo neen bu ñu ko jëndee ba nag dina ko am ak ay waay ko nag am na bi mu jaayantee yàlla yaay da koo jaay mu jënd waaye ñu ne ko waa léegi bi nga jëndee jaay mi foo foo foo jëmoon saa dama ñu daa laa jëmoon moom de waaw ah, moo war la toq-toq yi Cheikh Abdoulaye neen toq-toq yi lan barkeeloo ci la doomi Serigne Touba yi barkeeloo ba dem ubbeegul lenn mën ay Serigne Touba lu mu a war a jariñoo toq-toq yi la ñuy rek ci la doomi Serigne Touba la Cheikh yi laal Serigne Touba yàlla rek ko doy te ba mu détenee nee ba mu détenee da koo jeexal li nga xamal yàlla rek ko doy lu tax mu wolu Cheikh Issa Diagne gis na ko Issa yàlla daal xëy may ma ñeenti téeméeri may ak juróom-ñett fukki may ak ñeenti may ñu àndal ko muy Cheikh Issa Diène na ko ah mu ne ko waaw mu ne ko rafaatal na la. Hmm? waaw. yàlla rek ko doy. Sëñ Tuubaa ay may doyu ko. pour mu doy ko te da ko ba mu ko nëkkee ca leer bi haa saabu saakatu. Hmm. wala yëqut a faydan ak jëlal bëhër wal fulkaa la wax. seere pànk moo xam fa diiwaan waaye yimuta xam nga xam nga ñëpp farlu lañ bëgg. waaye daa jël ay nit fal leen ñuy déeyaaleen borom di fal ay xumb nee na balaa la fa am ci pied aras ci baax ni ñàlla dee dañuy dee sonn la ko am ak suba daa am lu war a am dama war a def lii dee dox ñu te mooy jël si borom ndeysaan ca wàllu yaa ca xaw sie sax fa diiwaan ca xutb ya ak ña daa wéetal borom ña xam yàlla ña xam yoneen ca baawam ba tey kenn jaaragul fa mu jaar borom te wax jii moo ko wax ba ko nun bu yóbboo ku dingat wax jii kooku moo ñu yor boromam xanaa xamoo ne Serigne Touba ñi jiwee ak yàlla ñëpp jubuwuñ ko. Hmm. waaw daa wax ne lam tan sani rabbi wala an saakara wala am tuuti ji leen si yan saakara yow yàlla ma de waaye yow xam nga ne yàlla ne ko man <laughs> a garaaw dana ko man Serigne jubu tamit ku lay fàtte Serigne Touba nag ku kennal yàlla la maanaam bi ko yàlla mayee mënoon naa war sax xam nga am nañu war dem ba yàgg yu fëgg sa dënn waaye bi mu demee ba ubbil ko lépp ci la gën a yeesal diine maam waa kër mu tag leen tagg ñëpp ñam àndoon tagg ñu baax ñi baax daal sëñ Tuubaa ko def hmm. comme bu nee wajjaha li sunnati wa nahaari xayra imaam ahmad ad-dahaari ñu war ko koo nangul bu nee baraanu xudus min kulli loolu mooy lan bayit bi nga jógee léegi jaawasu anas déedéet wajjaha yi la wax hmm. zulleyli wa nahaari hmm. xayra imaam ahmad ad-dahaari la wax loolu mooy lan waaw dale ne mooy am subaam mhm. ngoon yàlla woomatal na hmm? waaw waaw kon fu ñun fu ñuy jëlee maanaam guddeeg bëccëg daal mboolem yiw yi ci am mboolem yiw yëpp sëñ Tuubaa ne ci kontam lan hmm? ah, wa nahari mhm. xayray ima maham bilantihe xayray dégg dégg nga ñuy mbàttale xayray na da koy ket da koy بودي ونقول لها خير من الجاك باسكو الست وقفها عن الافات جوم دان كو لا فا نيك تي خيول ييب دي نيو تي دك مو مثال سنا نيو اك لا بودي يقود لي مانا فيها بلدان قد اني لا اعطي من الابدان نير تك بي تك سيد دابا فول باخ نيك ولا جام نيك فنان بي نيو تي دك فول بون نيك داكاي فارال باسكو nit jëmm mën naa am xëcc waaye doo am waaye suñ tubaa dafa jalbu lee jalab tawa dafa xanni maxtatani wal xaq sa yaasal mani mallatani saraftani tamlika ahsana tasrifina ala muluka yaqudu li kun fa yakunu minka suklina bi amnin qadar jo anka mooy di yàgg ñàkk sa oto sa oto ngi xeeñ wa habliya yawma bihi kun fa yakun fi dafi la wax wal jalbi wa tayib li sukun waaw wa habliya yawma bihi kun daa gis loo xam da ko jox kun fa yakun ah li xamal ne li la xamal ne surtout ba yàlla ku fekkoon dina lu ko jox seen sàmm dafa dégg loolu ñëpp xamal seetal ma sol mu mooy ko seen baax. afdaal yasaral rasulallahu xubban wala ilaha illallahu loolu la wax ni. seen tubaab fu ne taxawal na fa yàlla. déggoo ne jumaa yi da daan samp ci maayamoo tubaab yi ñëw di koy yàq jumaay bant yi saaxali xëy law fii maa yoon baa ñu ne ko waa léegi loo ci amul ne maa saa akal bi wa ëllëg jan baa léppay raafu mu des sooroor yi nee na sama sooroor baa ngi nii du daan. sooroor yi. sooroor yi waaw sooroor yi wa sooral li sooral yëpp benn du ci daan benn du daan waaw ngelaw ak bomb ak lépp ci yam bu réew doon tag ñu jël asamaan si di ko di ko jaxaseeg suuf si sax sooral mi day taxawal kooko mën a taxawal diin sooral yi du daanu ci suñ tubaa lañ ko gis wala ëllëg jandaa du raaf nag la wax waaw ku bëgg njariñal adduna ak alaxar da ngay topp sëñ tubaa ku bëgg mucc ci yii ak yee ak yii bëgg ñëw da ngay topp sëñ parce que nous sommes les plus importants de la vie. من كدر الدنيا وفي يوم النجاة على وقت وفي يوم النجاة تبني في لما خ... لما جاء حكيم عم بني في ده في اليوم الخير لعفوا كي يوم الخير ما أرى نم أم جم تسيني نم نك أي مر نم كبايا ما ندا كريري من بلا ديك خم مقم لكن دينم كيلن أمر لكن أمر دا بقول كي نار بس عند خراسان bu lëg lekkee olom na ko gërëmee coy sëriñ bi bu ko yemale dara ni muy waye ni muy waye ah, day dundal ruu di defaru yaram waaw xamoon nga ne ah ku lu des fi yàlla wax si ah déggoo ko mun di dan di paas ne bismillahi rahmaani rahim waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu fa commencé ba si faa ñu kulli daal na ma déglu ku am feebar yàlla yàlla feebar bi effacé wu léegi léegi. من كل دار daaraa وعيسنا عزينا من مكان جميع الأعداء يا رب بالمصطفى المختار من مدري سفيه أمته في البدو والعدل هل يصلي بتسم بلا عدد في الآل والصعب وعزمنا من الضرر حب أمة المصطفى عما يدور له زوى العبادة واحسن من الصبر واصرف لخيره مسألة الغابة في كل من يصفو من البسل ولتصرف ولتصرف الداء عن مرضى الجميع بعلمي واصرف لهم موجبات الامن والبشر واجعل قلوب ذوي الاسلام في امل وتكفيهم كل ما يفدي الى الغرب وصل الدب بتسليم عليه بمن له التم والتجد بالسف والدرر لم سفاء من كل داء سما الخيس دي دي سافر بفعل لا اله الا الله ميرا تجي ما تجي لا تخجل كروبو دي جمتي على ما ما تجي سما بين كالكري. تاو تتني خلق الوقت تنتي ده هي هي ولي يخطر قدر الحاجات بين راودي والبست. البست. دي سر. هل جميل اللي بهي جمتي ولي. ليوتي إلى يسير برايا مجمع. هم؟ لا تجي ولي. لأن يلا بدان يلو يلي جمتي ما يا ربي هي أريت تني الأدلة. يا ربي أريت تني الأدلة وآله وسهل الأدلة.

لا تمي دين تيجي جلا كلا تدخل من مجيب واو خشوع علو بوا بقى ما ترجع أسماء نقمتي وأسماء نرجع واو أمن أمن ما عندك لم تشوفه لما عندك مناي في أمن ربنا وهب لي ربي هلما لم يكن من التعليم وجعلني بكم ما أعرف نيجان يوم ما يروح نيجان يوم ما أعرف سمو دخا نمكيدو ليش؟ دافكش دل دل بعير دل بعير دل كوب بعير lii ñi jàngi woon lay wax ñi jàngi woon xam-xam nan nan ma déglu. Hmm. waxabali rabbi hilman lam yakun sunu borom da koo may xam-xam yoo xam ni. amul amul. mi ne taxalu mi nee na ñi ñiy xam lu nee na xam-xam yooyu danañ xam lu ba dee. addina jeex te xam te xam-xam boobu duñ ci laaj. ma hmm. jaa ali bikum amul amut la wax moo ko wax rek moom nii moo ko wax <laughs> man daal man amara ni rabbi bi amoo sax rek am. li naa si bi am nii malaasum. bi am ñii ma laa suñu iman wa maftaru yàllaa ma digal nit ñi jébbalu ci man faman araada xayra fi kati yi daari nii fal yarsu bii waaw loolu de moom waaw mas kaa dégg ku ku xam ne sunu borom moo la ko waxal ñu def ñu jébbalu ci am déedéet saalika fadlullahi yutiyi lisi yasaauhu wax xaala lii xol bii lu si ñenn dañ ñëw yàlla lay déclaré seen tubaab bi wax am yonente moo ne ñëw na yàlla la wax comme kan mu man ni sëñ Tuubaa ñaata yoon la nit ñëw ne ko wax ak moom mu ne xaaral ma laaj ko sàmbar wax ak suñu borom. Mhm. xaaral kii tamit nee wax naa ak yàlla bi seexil Ramadan seexil amaani wal mun mhm. a awal fayda. keroog Ramadan xew rek mu ne wax naa ak moom waaye li na mu daal. Mhm. koo ne du toog sëñ Tuubaa ba nii ba nii moo ngi ñib borom. maa la ko wax. waaw sëñ du toog du tëdd du ba nii seen tubaa ngi ñiit boromam moo ngi seey ci boromam rek di man dafay ba nii maxe ko ba nii ñuy wax mhm. xaw ma fu ne man xaw a fu mu ne mhm. waaye xam naa moom ngay dégg waaye xam ne ma nga ca boromam ma ngay xol ba àgg ci yàlla àgg ci ndëm gi yónneen mhm. parce que ñu sopp ko soppi lépp muy boromam lépp Sëriñ Tubaa du doyal yàlla ku dul Sëriñ Tubaa da ngay ba yàlla inna allaha maxana hmm? bëgg gi bëgg yàlla amul fa ñëpp ahbabtu rabbal alamin ahbabtu rabbal alamin maa amin wal amin wal amin لي كان كان لي واد الفدي دابا راه خلوا له قرع والله قصيده بما كاي تودني نيخ دي موماي جا باسكا دوكو دان سوكر لم مي يديو وان كو دان بنو نان والتاكسي عن الانبياء والرسل خير من ديم سكر العسل دوكو سوكر لم نيو سما خسدي دا عمي حبيبي تاعو ma hal xalaawa bi ñuy diraay la da nga day xës yi daan neex daa am pili bu dul yàlla jeeg yooyu sax daa am pili si bu ci neex daa am neexit bu ci neex bu ci neex waccal kitaabati ilallahi ahab min kulli xattin wa ilallahi ahab waaw yàlla ci boppam daa bëgg téere yi waccal kalaami raasidan wa mursidan wa fikrati nawir wa xabi arsida wa salli yaa latif wal tusallim ala nabii wa rasuli sallam wal tuf bi haddika qadim wasrifi li xayrihi maasaa huwa yansarifi wa hablahu lutfan jamilan wa hab loxoo mën aa loxo bi xëy rax bi wasrif bi jaahi lu mu taqaalil umma iqaasan takfir asawal xumma laysa li ummati nabi si waaka yaa waaye nag ak sartali jadd waaka daa neex awaa riime bi ak ak maanaam garage bi nag nga xam ne du mbëkk sëriñ bi du mbëkk du mbartan daa riime mboolem ñi riime maase nan xam ne sëriñ Tuubaa dàq woy ci àdduna moo dàq riime ci àdduna parce que arabam yi mëseetu koo gis ci àdduna moo jaaxal arab yi ba lii ni te moo waral nañ ko doyloo nam ne ko kàtt yi ñu jàpp ko te bañ ko yemale dara ah lu ne wax na ko lu ne sëriñ lu ne wax na ko ku jollu ba nii dootoo jom ñeete ñun suñ tubaab jomoon na ko yàgg maa hmm? la ko wax defal na nu lépp buñ ko yegg nan ko sant rek nan naan ko yaa ne rek ku mën a jóge fenn loo am am xam-xam nan naan jërëjëfe borom tuuba waaw booy ñaan ñu ne barke amiin barke xaadimu rasul xaadimu rasulillah léegi day jolli fépp daa man ne xefet parce que tax ta bayyanu wala yi xam gis ñooni nuuran wa min nafu an bi riddan laa yoqatahu leegi day jolli rek te lu tax laa bu nee laa mooy du waaw laa yoqatahu la wax abada ak sarmada moom rek hmm. Hmm. ak muhammada sëriñ bi dañ nga koy gis koy utilisé te nii <laughs> أجنام تاي تاي أجنيجي نيجي خصو مونا موي ليجي ليجي أك تاي تاي سندير كاكوي واخا سونا تا بوكاي واخ كات دان كو كوي جوخ ليجي ليجي وما رمته من مالك خالد خالد دين تاني وما رمته من مالك خالد هل لم تني الغيبة عطا زلت منتبعا كم خم يوي دي دي دي غاي كي كاو لا ني خام ني رك تيري خام خام dañ ci tegtaloo di baax di ci digle lu bon di ci bàyyi di di di ci di ci digle baax di ci bàyyi loo nit ñi lu bon. Mm-hmm. waaye nag téere yi daa am leneen luy ndey téere yi. mooy la mooy Serigne Touba Serigne Touba yi ndey téere yi téere nan mm-hmm. ko ber waay nee na yàlla ma ber man biiroo sama bopp de yàlla tamit moo ma jiital bu kenn wax ak man bu leen ma xarab xarab leen kii. antal mu xaddi mu xaddi mi mu xunaa waxanan xalaa kasiir min al axyaar yi waaw du man de nii la def hmm. bi bi muy wax ñàkk dee di daa wax nii loxo yi dane du man de lamtan nii muqaddamaatul mawt wa hmm. qad rafa'tu nee na nag sama loxo ca kaw kon ginnaaw yàlla ma ko may bil baqaay sawti hmm. dama koy jëlal ca kaw kon bukkumaat la si ne kaabadoor yi badal min mawti nafsi na ñu ko waroon a rey nee na yàlla daa jël deew ñooña weccaxtaan ko ak deew ak deem lañ jël yooyu kaxtaan ko deew ñu ko bañ moom tuñ na si na kaabu doon yu ba jeex beneen xaaj bee fi des mooy ñu ko bañ di yàq diggante 27 ak ñeenti téeméeri at maanaam 1927 ba ñeenti téeméeri at nee na xoog jal lii jañ ak lii xëcc ci loxoom la ne maa la ko wax mm-hmm. Mm-hmm. isaa salabtu bi ilaahi <laughs> jalaba wa in mm-hmm. jalab salabat jalab daal na ñëpp xam ne Seex Ahmadu Bamba ko am salabat jalab Mm-hmm. isa tarabtu min ilahi jalaba mm-hmm. waaye wa in saraftu min ilahi salaba mm-hmm. bu ñoddee mu ñëw léegi mu dem léegi-léegi suñu waajee mata àndal nee bu leen dem de ñëw leen sama ginnaaw boo leen demee doo leen yegg na sax ali walay sa min nii yan si la wax wa inna ni bii himan wa mafsaru ñëw leen ci sama ginnaaw rek làqu ma wax ak moom kii maa mën a wax ak moom kii ma gis seen tubaab rek xam ne <laughs> xam yàlla xam yàlla ak xam fa nga koy jaar ak xam ni ak ak ab yonente xoolal yonente bi ñu ñu ngi koy tagg rek boo war a wax daana kaamilu usman abdi habi wa asnabul mufarraj wa askanul mubtahibi wala wajhu mahliquma oh. wa huwa akmalul wara sayyiduna Muhammad lay wax ne xam-xam waaw li baax baax nga lànk ne aw ñëñe duñ ko waxal ay baax baax hmm. parce que la bu ñu kenn ne hmm. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul amul morom waaye am na tur xam ne waa suufa kawam am na tur xam ne waa kaw a ko xam. waaw. da koo doon ci yeneen tamit da koo ci yeneen tamit. ñii am na ñuy wax yonent bi Ahmadu ñii di ko wax Muhammad ñii di ko wax Abdul Muhayminu ñii di wax Abdul Jabbar ñii di wax Abdul Xafaar non la ko ba muy dugg ba muy dugg ba muy dugg àjjana ba muy dugg àjjana Abdul Karim lay tudd. waaw noonu la Sëñ Tuubaa ay tur. Mhm. boo boo boo dégg ma naan yaqulu Abdullahi wa huwa Ahmadu xaddimu man sumaatuhu Muhammadu waaw. waaw. Mhm. آه، يقول عبد الله يعني هاي الجميل عالمنا أهمل حالبنا محمودنا معمل وجه للأمانة دون خوف كل تفكر أن تتابع قال سنتو بارك لكم يا رب قبول سنتو بارك لكم دا يكتب دق نك في كويسة واو لين لين دخل عني يكتب لوال دق نك في كويسة تبي تيجي على تيجي دد دد بيرك نحن بقول خم بقول ما نعم جم جسم بقول bu nu kenn xaaral bu nu kenn xiila nan ñu wax sëriñ bi nee na rek ñu gëm man moom sëñ Tuubaa nee na laa mën a gëm sëñ Tuubaa nee na ndax nag moom man xam buñ demaat feneen fu mën a dem buñ ñëwee nii sëñ Muntaxaa def dajal réew yëpp ci xam-xam jël sëriñ Tuubaa teg ko feer xam ne kenn mënu ko kenn kenn mënu ko faafe suñu jàmbaar yàlla fi yàgg téwér sagal nanu kii te moo fi ëpp xam-xam réew ko ko fi ëpp xam-xam seen sàmbay moo bu ma jagee kenn ma mën a muy almuntaqa li xayrin taxaa bil muntaqa kullu si saqaa wayen huudi yi ndax yi sahidu noo suutuqa xam ne dëgg ak i fen xam ne ay naaw xam xaqiqa xam sariha mooy sëriñ Mouhamadou Mountakha ah. ku ñëw mu def la ni boppam te fees dal boo waxee sëriñ Tuubaa yaramam jëmmam ji sax dootu ñëpp di jooy ci moom moo waral ma ne baar baa ngi te kaw te baal ba dem na waaw a illahu kalimatullahi yéen xoliya bu mu laal suuf turu yàlla bi waaye xanaa ñun ñoo bëgg yàlla nag xam nga ne ay jumaa murid yee ko ëppale ci àddina xamal nga loolu ay jumaa fu ñuy jaamoo yàlla murid yee ko ëppale ci àddina ci Sénégal julli ci Seydina Muhammad tamit murid yee ko ëpp lu muy def waaw tiin urufaka jamii salawaat xalal nabi yaa mujiba daxawaat am na fu mu waxee sax ne am fu mu misaale ne daa gis mu laaj boromam xataa laa ab xaasara xataa laa ab xaasara daa daa daa am damay karbat diiwaan ba daa am fu mu waxee ne sax julli yi war a julli ci rënd bi nee na nee na daa dañ koo misaal comme ay magasin mu laaj boromam ne ko damaa bëgg nga yi mel ma ni julli ci rasul bi ci misaal mu julli lépp mu jeex mu ne damaa bëgg ñu wan ma fi ñuy sëlmal mu sëlmal lépp mu jeex waaw déet waay xamoo ne ñun ñooy nabi ñun ñoo gën a bëgg Seydina Muhammad ci kaw li ñuy julli ci ren ku koy julli septembre cinq cent te loolu li ko tubaab yi yóbbul la tubaab yi tubaab yi tey jii ñun doon indi ñu tàmmat ko ci seen xam-xam lan lii mooy septembre cinq cent fi ne boo demee ci dalaa elul dalaa elul xayraat deux cent ñaar téeméeri tur ak benn moo fa nekk ci yonent bi. am na ko salli maa taslimi eh, na bi dara ilo xayra léegi nag boo ñëwee. Mhm. boo ñëwee. sanat mm. waaw léegi nag boo ñëwee ci muxaddimaatul xidma 787 turu yonent bi indi na ko fa. gis naa fa mu naan yonent bi. Mm-hmm. mis mis mas mas. <laughs> waaw loolu kenn ko mis mis mas mas ku ma sa gis loolu. mais Rasul mooy sëñ tubaab mas sëñ tubaab mais sëñ tubaab jeexal na si na moom. da ko da ko waroon mbaaru. mbëpp ko lépp la ko def. mis mis <laughs> muus muus. naas naas. Ah. مير مير لكن حالات رادك المنير ما هو يوخ وهو البشير والنصير ها واو داي دوك دي جن ناي ناي سيرين ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي سونو ميرا دام cheikh ahmadou bamba khadim yow de tey moom di nga ziare kaamilu sëñ tuubaa bi moom xamul lu doon ay bu ma ko may jël de yaa ilaha illallah kaamilu cheikh ahmadou bamba khadim ah tey moom di nga ko ziar la ilaha illallah moo waral nay wax nit ñi li fi ne ñun tum ceex na rasulullahi xam nañ fi ko sunub sëriñ teg demal na ñu ëpp lu ñuy julli ci rente bi waaye salli salaatal tam la ustama loolu ni ma neex nee na nag boo yëndu xilaat yi bis nee na ci xol xam nga léeg-léeg nga wax ni te lu dugg ci xol waaw nee na boo demee ci rente bi boo yëndu xilaat yi bis fii xal bi nabi suuri ku li ak xal bi waaj bi nabi xol ba ma ngay neex yi muy julli ci moom day neexal yonente bi yonente bi xolam da ciy neex waaw li ne salli salaatal tam la ustama wal arda يا من خادم لنا مع مع السلام يرتقي للحرس ويملأ الكرسي ياسر الفرسي ياسر الفرسي ويدخل من بسرى نك وعينا في خلق النبي دا دغ يمتي من في خلق النبي مليا وعينا سرور سرور سرور كل اقرب النبي هل النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والعمد يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس اللائقة

وتن بديه لعصيم قولي منورا يا ذا العلا والتم وتن وقت بلا خيو يا عالم الساهل والخيو ولا يهب كونك اللي فيه وفي سواه لا يوندل ولا يهب كونك اللي فيه وفي سواه من جنك ما مني يفي وسفري حقائدي وخولي وعمري وقلقي يا عوني واجهتني بالاجر والسلام الى جنانك وبالسرعه وتم بدي المتقى حياتي حياتي واجعل حياتي بشرا للملتقى في اله وصحبه سم التقى xasaay tamit day setal jëmm day yóbbu nit ca yàlla. sëñ Tuubaa xam nga ne xasida yi da cee màndaxe loo xam ne dëxanti loo xam ne nit mën naa bañ a dem daara di jàngi xasaay léegi sellal jëmbam mel na ku dem daara. di def di dindi di ñaan di ñaan yow. maa ko wax xasida dafa jàngu la. day defar nit day dindi nit ci ak rëy di ko indi ci ak taam bi di wax kenn di dund bu mu tey jullit seen maam day tax sa dund tey sallallahu ala muhammadin yëpp dama rek demal ci muxadamatul xidma yëpp dugga secret sa ku seen tubaab ku doy wax dama koo gis damaa gis alla yaaban ahayd bismillahi raxmaan raxiim alam nasrax laka sadraka wawadahnaa canka wisraka lisii anqada sahraka warafacnaa laka sikraka fa ina maa lhusri yusran ina maa lhusri yusran fa isaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farxam ubbeekaay ci alam nasra la commencé ci lay sëñ Tuubaa daa jël alam nasra da koo jël ba téye ko dugal ko ci biir Mexique daal di ko ci daal di ko ci dëkk. nga la leew. xam nga fan fan la. Mm. war fax liman bihaa yusalli zikra واجر له القاتل واطرح صدره الم نفر التي لك إيه، ما جيب ومسكر لا لمن بها يزلي نكو ام كوي ديف كراسا تريس وارفع لمن بها يزلي الذكر واجر له القاتل واطرح صدره الم نفر دوغنا بو يك واو نكو يوت رك دوغ نفر الم نفر وبيكاي سنتو با دي مود مود لay jël sirru lay jël waaw addi ko mu ne adduna bi sirru bi daal malaka ni rahman ñu ne ko doon mu mu ne sirru dunia sirru bi laa yor waaw sirru la yor moom moom moom du yor te fii kulli zayin zahiran wa batina wal fax bihi yaa maliki mawatina lay cay sëñ Tuba kenn du moom xasaytam yi xasaytam yi mu ngi من من معجزات المنتخب هذا ده يوخ من مجي أما فينا لو كان هو في معجزات أخرى ما خير خيرات لا بيك أخرى خير خيرات لا إله إلا الله وخير خيرات لا بيك أخرى خير خيرات لا بيك أخرى وخير خيرات لولو مسلم تلا تلا بعض الله تلا وهابي يا جونا بيكون سيكون في الدفع والجلبة بخير آفت وخير سلامنا في أبد ولي مهدي يخلي ولي السفر مالكي أنفاسي يا كافر الأهداء والحفاظ دقل دقل من يا خير المنسلي وخير الراسخ يا حارسي يا منسلي يا راسخ كنا تي أه. أبصر كذا جاني خسني سنتلاي كون دقل من أبورتي بنا بكادر يقول أبصر أبصر من بين nga xool lu wax sunu borom ak wax ko Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi ak ñi fi yàlla yónni. moom daal lañ déggagul mu ni sama dañ koy jàng biir àjjana. waaw moom dafa am. Mhm. dafaa nekk te adduna jeexagul. te mbir ya day daw ña koy jàng mbir nañ ko ca pilier muy daw. Hmm? nee day daw rek mbir te boo léegi bu dëgg nekkee ci yi fen nee mbir ma du taxaw. فلا هي يفضل الله في هي جاء داي داوي وتعالى هذا الاهل شكر دغ كي ما يبني يعني نسم خ ديال عور العين والولدان في الجنه التي هم دعوهم وتعالى من اهل الشكر اليك عليه اليك واليه عليه الصلاه والسلام دوك بسم الله ينور هائي بلا مناهي ولا انتهاء آه، الله اللي قراو نمو سيبي نان ني تامي تي بوكال ني بوكال و واو دينا دي سيرن توبا ديكو فوق بارلا اني اله من شرك ومن ba noppi duñ ay naafiq kulli nifaaqi wa saraadati damit texe ji dañ koo tàmpu la rek moo waral ñu koy wax. ci ndeysaan. jox na ñu ndékki jox ñu añ jox ñu reer loolu bu subaa da ngeen ndékki nan am yàqin yàqin xilmul yàqin. loolu suñ loolu suñ tax naan nan am yàqin ci sëriñ bi. yàlla na nu ko yàlla defal. kii mooy sécurité sëriñ bi waaye sécurité boo ci nekkee kaaraange bi ngay am kaaraange sécurité lay doon parce que moom lañ sécurité. waaw. waaw. moom ci boppam lañ sikk xandis rifil ahdaa turan bi nabi wa ahli badrin kiraam nujid mun naa àllee bi duquli saakina fii xisnikal asini minhum amina nam nekk ci biir sëñ Tuubaa am sécurité am tex ak àddina ak alaxira fii xisnikal asini minhum amina amin barke borom antalla si tax si man di tax amin kulli maa ngi ibnuhu min al yàlla aajo yëpp faju amin taxaw naa fii la ma yàlla yëpp ndeysaan may digal moom fàq xaw Moussa yàlla na noonu nag Xaadimu Rasuul te tàggoog Moussa da ngeen jëf murid yëpp kontaan ci lu mës a defal lépp a ngi ci loxoom tamit boo dégg mu ne ëllëg yow man xiyaamee ku ma séddul da ngay fànne xadraama xal bi da koo bind daane wajjahali zulleeli wa nahaari xayra ima maham bi leen tihaari ki nga xam ne yiw yi nga xam ne yiw yi suba yi ak guddi yi ak ngoon yi yëpp ci loxoom lay daw di ñëw bi leen tihaari nee na day ñëw yiw yiñ ci amee yëpp maa ko moom ñu ne ko ak lan mu ne mu mu mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne waccal waccal buyuti kullaha masajida yaa naafi'u man laa yakunu saajida malakani maaliku kullu jaami wa kullu masjidin minal majaami xanaa loolu sañ-sañ la nee na julli jàkkee ak jumaa yi yëpp buñ jullee ba noppi yiw yan faa amee yëpp man Sëriñ Tuubaa yàlla womatoo na ma ko maa ko moom yàlla ko may la wax moom lu mu wax danaan yàlla ma ko may day leer boo gisee Moussa ak Xiisa ak Haaruna ak Ilias ak mhm. Idris mhm. déggoo ñu naan ko doon ngay mbóot ci doon doon ngay mbóot ci naari waa Deyma mhm. nga xam ni ñu njëkk ña ak ñu mujj ñëpp Serigne Touba da leen liggéey kon jox ko seen lenge yi ak seen baatin ban yaram jox ko nga xam ne boo bëggee Moussa boo bëggee ci yëfi Moussa faaw nga ñëw ci Serigne Touba ndax da koo tudd li tax mu tudd leen daa tawasalu ci ñoom ba noppi bëgg nii nga xam ne yàlla da ko yëkkati ba aw tëram du fay yow it sa tur bañ a fay Sëriñ Tuubaa moo gore jàngal jàngal yàllaahu bi Mustafa sindidi yàllaahu wa bi xalilika Ibrahima yàllaahu wa bi kalimika Moussa Salihil Qadir li tax mu leen di tudd du loolu ñooñu dañoo am gërëmal yàlla ni ay yonent jaar fi Sëriñ Tuubaa bëgg ak njabootam di leen waxtaane mu bind ko ay xasaay ñu leen di tudd kon kookoo gore est-ce que waaw wax na tamit ne mboolem koo leen gis muy sikki sàkk sama mbir di ko sikki sàkk ak may yi ma yàlla may nee na kooku li koy dal du doon jàmm te bu wutul sax mu dee ndax léegi day tàng ndax yàlla la bëgg kenn di ko weddi wahaabu habliya la wax mawaahibal kabir may yi lay wax wahaabu habliya mawaahibal kabir waaye wa xut mu baari si foron lil xubur nee na kuy def ak man nii leen ñag yi te mooy dee ñu la dund hmm? waaw te duma yi sax yonante bee ci njëkk ne ndax xalimtu yaqinan na ma looy kaani yi si xam laa ko ko wax bu mhm. àndal mu xafa man xala ne yar daw nee na rasulullah ci boppam moo rekk la kon bañ suñu tubaab wóor mhm. ñu bëgg rasulullah xeetu yonante bi mhm. nañ jël baytu woowu nan def attention nan def douce la ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daa set bokkut ak ñun ban bi ndax dane barra anil xuddus min kulli danas daa set ci ban bi ñun yëpp ci ban la koo fi dégg ci ban bi ko sàkk وأنا يلا مسكنا ويخ نيمو يخ نقرأ ولا يخ لي أبار بيكو جدنا نيمو سك أكسد من يسقى خيمة أم خيمة نقوى خيمة أي بيت منو قابس سك بسوي كم نك سك ويان لي ترى ويان سك برا إني أخذ دوسو من كل دناس لا من كل دناس بوكو ما جين تبدي دوا برا من كل دوس أو liddu fi mu ban bi moo am solo moo waral ñu lay moy damaa bëgg a jéggi la daa am ndeysaan léeg-léeg buy wax ak suñu borom. Mhm. sëñ Tuubaa man avocat. bi maa xam ajra moom. fii sirri wal jëri fa antal akram daa gis mu la ko da ngaa tëdd da ngaa màgg. aywa jaam yi bëgguma nga leen di bëggu bëgguma nga leen bëgguma ngay fay da ngaa tëdd da ngaa màgg yàlla yàlla noos bi wax ji nag ndax yàlla daa bëgg naa ko kenn. <laughs> mënu ko damaa bëgg yi def ak yeneen activités dama bëgg ngeen diggante ko seen sàggante sàggante gi ci biir ak gi ci biti ku nekk xam na ne moom la ñuy sooxaale ak tam lu mel na day day dugg foofu baax nan nag waaye léeg-léeg da ngay gis dañuy jàgg ko jubbanti ko waat Sëriñ Tuubaa képp la fi yàlla may mu tegu ci saraat mustaqim oh, ah, mës ta mës ta juum ngir nii li daam yi gën a tuut xel mënu koo takk di woon. ana lazi lasta abada ila siwaaka haahuna suma li mu daa wa anta rabbi al wakil wa anta asbi fala ami mais li tax mu doy waar da koy duy sëñ Tuubaa bu waxee waxam da koy duy ba mu fees jàng du waxu ordinaire loolu laa bëgg ñu xam daa am mbolde wu ñuy misaal wu malaaka yu dóor nit nit ak ginne bu ñu jàppoon na woon di bëgg yëngal mbolde wi duñ ko mën a yëngal ngir doole ju sëriñ bi bu bu bu bu jëmee bu sunu borom buy jëm ci sunu borom di wax ak moom mbolde woowa lu ko gën a diis lu gën a diis mbolde woowa ba ñàkk ko bëri sëriñ bi maa gën a diis loolu boo dégg mu naan ko yàbbaru anta rabbi al hasibu wa anta hasbiya fala aqibu yaa hadiyu moom lay wax xakkamte yaa xakkamul baaxi li kaw liyee faw si bi maa xaaba min bu saraka yëpp daw oh. ni mu ko ni mu koy laale déggu dama teg fii nii da ko faa laal rek mu ne ko léegi loo bëggati ak koy koy jàngati lu mu bëggati ma may ko ko antal basiiru la sii loolu la wax borom mbir mi lii xaada jumlatama lix tabta dunya wa uxra min kay Allah mooy nag ko kii fi toog tey ci mbégte lay dox ñëpp a ngi bëgg yëf yaa ngi dox sëriñ bi tamit nee na daa wax loo xam ne ci moom la ko jëme waaye man du ma ko jëmale ci moom sëriñ Tuubaa weesu na foofu ak borom daa wax ci mi daa diine sëriñ Tuubaa wax ne nit balaa ngaa texeel kenn da ngay lijjanti sa bopp ba noppi doog a lijjanti. sëñ Tuba laata muy woo murid daa am lu mu leen añale ba noppi. doog a woote. daa wax ni. fanaahi bi fadlillahi fii la wéy jara. nit ñi dal seen gémmiñ ne ko ah dégg la ma ngay daw de am nga dégg li wax fa fanaahi bi fadlillahi parce que fii la wéy jara bi xëy na xëy na duuna makkirin nag wala xaw. leeralal loolu. yàlla day sunu borom daa am àll wéy. ay alluwa ay alluwa du benn du ñaar du ñett du ñeent kenn mënta xayma alluwa yi bind ko ci téere ne alluwa yi temps waaye Sëñ Tuubaa daa li ci am importance mooy alluwaam ju mag ja préféré nga xam ne yàlla ne sama alluwa ji laa préféré mhm. fi leen bi mhm. waaye bi ñu ko bindee mbind bi a yéeme bi daa koy jaraa nee na di wër day wër fii lawhihi jaraa nee na ma ngay daw oh. nee na bi xëy mi haa inna waaye nee na duñ ko raaf de doon lu ñuy duuna mag duñ ko raaf nee na kenn du ko raaf wala duuna mag keneen nag nee na ay pexe yëggu fa xam nga léeg-léeg nit man ngaa fol ba ci ak nga folle ko man ngaa nekk wàllu ba ci ak ñu rëkki la waaye nee na foofa kenn yëggu fa ay pexe yëggu fa ba koy dindi duuna mag keneen wala xaw fi te nee na régalu ma ci li ma wax mbind maa ngay daw rek vingt quatre heures sur vingt quatre mbind ma day daw du taxaw jaraa wax fa lay bi fat liñ lay ñu ne ko ne mu ne fii la fii jaraa bi xëy na muy xaaj duuna makkin wala xaw fi. nga xam ne nga xam ne maanaam texeem gi. day mel ni écran bu ñuy dawal naan euh, texeeg Sëñ Tuubaa gaa ngi nii daal. di daw ci muy daw nii rek nga xam ne day daw noonu rek. waaw day daw. waaw te écran sax boo ci dóoree dara. Mhm. mu taxaw. Mhm. bu courant bu coupé mu taxaw. Mhm. waaye léegi àlluwa de la day daw. set gi day daw xam écran boo dóoree dara day bu courant coupé waaye fii la wi yii jaraa. fanaa yii bi fan lii lay. moo ci ne. te buy wax engagement ci suñu borom. xam nga sëñ Tuubaa léegi xamal na li mu nekk lu wér la lenn gën te leeral na li sëñ Tuubaa ne mooy ku ko masaan tudd di tudd keneen nee na dama yàkkam yow wal xiyam teew ba nga xam ne bokkuma ku yëg bi wa misaal yi faata bokkuma ci de ñu waxuñu sëñ Tuubaa bokkute kenn de moom moo taxaw ne eh bokkuma kenn maa fi man wa misaal yi faata illa yaqaadallahu ma lam yakuni waaye wala yakunu abadan li mumkin loolu daa garaaw mës ta ne loolu sañ-sañ la te dootul nekkati neena sama dëkk bi di Touba tamit fu way mën a jugee réew mu mën a la wax neena bu dugg ci ci dëkk bi na melna ku jugee ci lëndëm tab ci leer wajjal lu masque la xuru ji ñu solo parce que li nuri wax yaa ni ku la man zam loola ndox mi seen Muntaxa di wax day ñëw la degge wa masque nii sall mi na fujjar parce que woom lu halal e bi ma ci jeey ndox mi day ñëw buñ ci defé pexe day ñëw buñ ci defut pexe day ñëw Serigne Touba lu bëgg lolay am ndax boromu sañ-sañ la kenn du ndox mi daal nekk ci lan ne ni projet. projet ci la ne waaw projet day liggéey sëñ Tuubaa. Mm. bëgguma ñu bëgguma di di di di tàng sa baay sëñ mooy béy di sa baay sëñ fii te kaw lépp wa parce que di mi nal si jaay day digal béy di sëñ parce da koy digal di sàkkatam ñu jàngaram lan ma mm. dëkk. aw xaraf to xarafa. Mm. xustu mu nal tuuti de xu sàkkaram lu wax foofu. tuur dafu diggante araf yi saakara faam mu taxawee noonu ku koy bu may jàng damay ko arfa wursu a da koy taxaw na ko léegi tey laa bëgg léeg-léegi waxab léegi yow ma sama la xàq ni parce la ko mm-hmm. pour xel mu mat ñi seen ba seen xel yi mat di <laughs> eh. mm-hmm. daa am projet ginnaaw xalifa Sëriñ Tuubaa tudd na ko bëy woowu dootu noppaloo ci fekk ndox mi ñëwul maa la ko wax yàgg naa ko moo wamaska ni sali jaari daa am procès ku tedd ki du koo diggal te du koy def ndox mi day ñëw kum neex ak kum naqal ndax ki ko diggal da nga koo may lu xam may ko lu xam. Mm-hmm. am na loo xam ne dana leen ko misaal am na loo xam ne làmmiñ du ko laal. Mm-hmm. lii xaaba maa baana wa maa laysa bi moo waral Sëriñ Tuubaa kenn du ko yem doo xam léppam mm-hmm. kenn du moom. damaa bëgg ñuy dugg ci lool koo xam ne bu amee feet feet wu mu am. nee na Rasulullah ak saaba yi dañuy participer dañuy ñëw. yàquwul li muxtar wal ma maa moom njaboot ñëpp a ñëw. nee na moom ñoom du ñëw moom dama ne bàyyi fa Ababacar Omar Ousmane Aliou déedéet Ababacar day jug Ousmane day jug Aliou day jug saaba yi ak seen njaboot ñoom. sihaab yi xiran yaqini tamaha leen da koy indil ay ay leer. waa leen yooyu te nag màggal bu jot la waa léegi yow loolu jaaxalul yàquwul duñu muxtaaru waaye war alu maha moo ko wax de sihaab yi xiran yaqini tamaha la wax li tax nit war a tey ci mbirum Serigne Touba mooy fa mu jëlee li mu yor. ba ko kooku suñu borom du jox nee na daa déggaas yi ñëpp kenn nekku fa moo waral tey baax nee na daa déggaas moo ko wax ci ba gànnaaw xam ne maddata lii. Hmm. man laa yëg faa xale yi say jutta lii bi la ak faa li nga xam ne kenn gis ci moom dara moo ma jox daa déggaas yi ñëpp bu doon am sàlla daa daa tëj bunt bi formé jëflanteeg moom mu génn kenn xamul lan de yàlla moom moom wala yi xaada sirran xaaba xam xëy na moom la wax ah. déggoo mu naan waxalati wujuuh lil ayyi xëy wax daxaa mën a amal sànni wala abd man wax naa la ko léegi ci ngoon euh, maam nga xam ne ëllëg ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëgg ak ñi nekkul ci dëgg bi nee na bu boobaa ci laaj ci laay ëpp yaakaar antal la si xaq xamaa al juux danaan ko jàkk moom day taxaw ne dora mu am jom yaa man ilay xàllati wujuuh day adfee day a ci alxuraan daal di nax daal di dóor te bu dóoree moo la ëpp këru bayti Serigne Touba yi bu nga ko tudd nii nga yaakaar ne arab yi la bokkut ak arab yi da koy duy. mooy mooy wala udaani ka suxara. ka suxara yi da koy duy bi jaawatu rab yi bi lisaani la xërab. bilaa ni ayatin wa taabatu xurab yi la wax. te way bi du damm du ëpp da koy peese yemale ko moo da daa mën a réer. wajjal kita waxal yéen yow ma kitaabati lisaa durum wa yaaquutan adama villallah من يقبل الشكر اللي وجهك كريم يا من يرده لا تيال لنتين كون ننتين كي مور تاكوي سانت ني موي نيب كو ورا سانت ناخ الاسلام دا في نيكال اك دين ناخ نينا نيب خمنا نا باي لي كتو رسول الله لي لي نيب كتو لوخو سكرته اسخسني بخدمه الله سني ساعة ما تنفي حالا ما يبقى يجي رسول الله تفعلنا لو فكر من اللي جي ما يجي رسول الله ما كنا نتجي جي اللي جي waaw sëñ Tuubaa ko am jom la eh loos bii ñu lekk lan def attention lii rem la man maa ko wax hmm? man la engagé man sëñ Tuubaa ci laay wax dama ne lii rembat la ñun fayee koo gulu ku yor ay téere ba ñuy xutbaaka dinu misaal aka waar da ngay teey lii nga gis moo ne ñun lii tuur lan la ko xitaab bi deex yàlla wax bi maa yoxit bu maa bi mu jaayantee yàlla ba yàlla na ko lii laay jaay mun na ko ñaatu la mun na ko temps mu jënd ko bi maa ngi waxaat dañuy axalaat yaa neen bu ñu ko jëndee ba nag dina ko am ak ay waay jënd nga ko nag am na bi mu jaayee ko yàlla yaay da koo jaay mu jënd waaye ñu ne ko waa léegi bi nga jëndee jaay ma foo foo foo jëmoon moom da nga koy taxaw mu ne déedéet saa dama ñu daal di kan léegi laa jëmoon moom de waaw moo waral ñu ne mbada gi laala buñ ko junniy ñeeg la toq toq yi Cheikh Abdoulaye neen toq toq yi lan barkeeloo ci la doomi Serigne Touba yi barkeeloo ba dem ubbeegul lenn mën ay Serigne Touba lu mu war a a jariñoo toq toq yi la ñuy laal rek ci la doomi Serigne Touba yi laal ci la seex laal Serigne Touba yàlla rek ko doy te ba mu détenee nee naa ba mu détenee da koo jeexal li nga yàlla rek ko doy lu tax mu wàllu Cheikh Issa Diagne gis na ko Issa yàlla daa xëy may ma ñeenti téeméeri may ak juróom-ñett fukki may ak ñeenti may ñu adat ko muy tudd Cheikh Issa Diagne waaw yàlla rek ko doy sëñ Tuubaa ay may doyu ko jëmmi suñu borom ji da doon campagne pour mu doy ko te da ko ko nëkk ca leer da koo naan ba jeex ku uusukat askini bi haas abu saakatu wala yëqutta faydan ak jëlal wal fulkaa la wax malaaka panga mu xam sa diiwaan waaye yimuta xam nga xam nga ñëpp falu lañ bëgg waaye daa jël ay nit fal leen ñuy déeyaleen borom di fal ay nee na balaa la fa am ci pied aristibert ni ñàlla fee dañuy dee song la ko am ak suba daa am lu war a am dama war a def lii day dox ñëw te mooy jël si borom ndeysaan te wàllu yaa ca xaw siyee sax fa diiwaan te xut bi ak ña daa wéete borom ña xam yàlla ak ña xam yoonam ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar borom te wax jii moo ko wax ba ko doon bu yóbboo ku diigal wax jii kooku moo juuyoon boromam xanaa xamoo ne Sëriñ Tuubaa ñi juuyoon yàlla ñëpp jubuwuñ ko دعوة لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توديه لي في أنساك يو يا الله خمنا نفتي وما دعي يو خمنا نفتي وما دعي الله نكون خمنا عقو وعند تكلم جرا هذا لك من سن جبا دم جبو تبي كنا يفعل سن جبا لك كيف نال يا الله ما عندي كوي الله ما يه ما لنا نعور سكان ده أبدي وار دم بيا دي فوق بس الدنيا فوق بس الدنيا بيندي بيقول كل لب تلقي نيسر دينير سول الله maam waa kër mu tagg leen tagg ñëpp ñam àndaloon tagg ñu baax ñi baax daal sëñ Tuubaa ko hmm. bu nee wajjax ni sulle yi wan a xaari xëy na imaam ko bu nee baraani xudus mi ku loolu mooy lan bayit bi nga jógee léegi jaawasu anas déedéet wajjaxal lii hmm. yi wan na xaari hmm. xëy na imaam ahmad bi yi nga xam ne mooy am guddi ak bëccëg subaa mu ngoon yàlla moo waaw waa kon fu ñun fu ñuy jëlee maanaam guddeeg bëccëg daal mboolem yiw yi ciy am mboolem yiw yëpp sëñ Tuubaa ne ci kontam lañ koy def ah moo ko wax ni wajjahal yi zulleeli wa nahay xayray xima maham bilantihe xayray xima waaw xayray xima waaw waaye dégg dégg nga ñuy mbàq ne xayray xima maa am bilantihe nee na mboolem sën nag da koy ket da koy <laughs> بودي ونقول لها خير من الجاك باسكو الست وقفها عن الافات جروم بن كو لاي واخ نانا لا فا نيك خيول ييب دي نيو تي دك مو مثال سنا نيو اك لا بودي يقود لي منا في البلدان قد اني لا اعطي من الابدان نير تك بي تك سي دابا فول باخ نيك ولا جام نيك فنان بي نيو تي دك fulu bon nek da koy faral parce que euh nit jëm man na am xëc waye waaye suñ tubaab dafoo jagu lee jalab tawa dafa taxanni maxtartani wan xaq sa yaasal magni mallaktani saraftani tamlika ahsana tasrifin ala muluka yaqudu li kun fa yakunu minka sublina bi amin qadar jo anka mooy di yàgg njàpp sa oto sa oto ngi xeeñ wa habliya yawma bihi kun fa yakun fi dafi la wax wal jalbi wa tayib li sukun waaw wa habliya yawma bihi kun daa bis boo xam da ko jox kun fa yakun ah li xamal li la xamal ne surtout ba yàlla ku fee ko gënal ko jox suñu sàmm dafa dégg loolu ñëpp xam nga seeral ma sol mu mooy ko seen baara. afdaal yasara rasulallahu xubban wala ilaha illallahu loolu la wax ni. seen tubaab fu ne taxawal na fa yàlla. dégg mu ne jumaa yi da daan samp ci maayamoo tubaab yi ñëw di koy yàq jumaa yi bant yi saa xali xëy law fii maa yoon baa ñu ne ko waa léegi loo ci amul ne maa saa akal bi wa ëllëg jan baa léppay raafu mu des sooroor bi nee na sama sooroor baa ngi nii du daan. sooroor yi. sooroor yi waaw sooroor yi waa sooral yi sooral yëpp benn ci daan benn daan waaw ngelaw ak bomb ak lépp ci yam bu réew doon taj ñuy jël asamaan si di ko di ko jaxaseeg suuf si sax sooral yi day taxawal kooko mën a taxawal diin sooral yi du daanu ci suñ tubaa ko gis wala lal jandaa du raaf nag la wax waaw ku bëgg njariñal adduna ak alaxar da ngay topp sëñ tubaa ku bëgg mucc ci yii ak yee ak yii bëgg da ngay parce que lu neex um ci moom li kulli man bi yata'allaq najaa min kadarin dunya wa fii yawmi najaa la wax. te sëñ Tuuba yawmi najaa. te bu dee fii li ma xa li ma jaaxal ci moom bu dee fii danaan fii ak yawmal xiyaam daa fonk yawmal xiyaam moom. moo waral nan am jom ci sëñ bi. nan nekk ay murit nan ko bàyyi ma ne dara ku réeri nit day laaj ka xam lu mu xam laaj leen mbiram ki leen amal lu kenn amul daa bëgg ku yëg ne naar bi fi indi xorom si. bu lëg lekkee olof na ko gërëmee coy sëriñ bi bu ko yemale dara ñi muy waye ñi muy waye ah, day dundal ruu di defaru yaram waaw xamoon nga ne ah ku lu si ah déggoo ko mun di paas ne bismillahi rahmaani rahim wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu faa commencé si faa ñu kulli daal na ma déglu ku am feebar yàlla يالله في ضرب إفاس ولا إلى شفاء من كل دار وعيسنا عزيزنا من مكان جميع الأعداء يا رب بالمصطفى المختار من مدري سفيه أمته في البدو والعدل هل يصلي بتسم بلا عبد في الآل والصعب وعزمنا من الضرر حب أمة المصطفى عما يدور له زوى العبادة واحسن من الصبر واصرف لخيره مسألة الغابة الواقع في كل من يصفو من البسل ولتصرف الد... ولتصرف الداء عمر مرضى الجميع بعلمي إيه؟ واصرف لهم موجبات الامن والبصر واجعل قلوب ذوي الاسلام في امل وتكفيهم كل ما يفدي الى الغرر وصل الدب بتسليم عليه بمن له التمر والتجد بالسف والدرر لم سفاء من كل داء sama الخيس دي دي سافر بفعل feebar. yaa ilaahi. nee na tag gi

yaa ma bii arrêté lil abdillah daa bëri yoon moo war a yoon mbir di yoon wu ci waaye nekk nekk ca rek te ànd ko noppi waaye bul wax leneen bokk ci loolu bokk yoon wi kenn ko moom muy Sëriñ Tuubaa moom moom lépp lépp ñëw la ci moom da koy léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg ndeysaan ndeysaan ah koo xam ne nee na mboole màqaama yu gaa yi baax yi amoon لا تمي دين تي جي لا كو لا جو خامن ما ييب ها واو خشوع علوبا وبقامات الرجال اسماء الحكمتي واسماء الرجال ها واو امنا امنا ما عندنا تروم تي سوبر دما غيس مو ناي في امنا لو باخ نان وهب لي ربي هلما لم يكن من التعليم وجاني بكم ما ورا ني جاغي وون ماي واخ ني جاغي وون مو ورا سي مو دخا نون كاي ديغ ندايسان دا فاس ديغ دن با دن با ديغ دن كو اوبليي lii ñi jàngi woon lay wax ñi jàngi woon xam-xam nan nan ma déglu. Hmm. waxamali rabbi hilman lam yakun sunu borom da koo may xam-xam yoo xam ni. amul amul. mi ne taxalu mi na ñi xam lu nee na xam-xam yooyu danañ xam lu ba dee. addina jeex te xam te xam-xam boobu duñ ci ma jaa ali bikum amul amut la wax moo ko wax rek moom nii moo ko wax <laughs> rabbi bi amu sarri am. li naa bi am nii malaasum bi am ñii ma laa suñu iman wa maftaru yàllaa ma digal nit ñi jébbalu ci man faman araada xayra fi kati yi daari ni fal yarsu bii waaw loolu de moom waaw mas kaa dégg ku ku xam ne sunu borom moo ne ko waxal mi def ñu jébbalu ci am déedéet saalika fadlullahi yutiyi lisi yasaauhu wax xaala lii xóol bii lu si ñenn di ñëw yàlla lay déclaré seen tubaab bi wax ak yonente moo ne ñëw na yàlla la wax comme kan mu man ni sëñ Tuubaa ñaata yoon la nit ñëw ne ko wax ak moom mu ne xaaral ma laaj ko saa borom wax ak mhm. kii tamit nee na wax naa ak yàlla mun mhm. a awal fayda. keroog Ramadan xew rek mu ne wax naa ak moom waaye li wax moom bari na mu daal. Mhm. koo xam ne du toog sëñ Tuubaa ba nii ba nii moo ngi ñib borom. maa la ko wax. waaw sëñ du toog du tëdd du sëñ Tuubaa ngi ñiit boromam moo ngi seey ci boromam rek di man dafay ba nii waxe ko ba nii ñuy wax xaw ma fu mu ne man xaw ma fu mu ne waaye xam naa ne moom nga dégg waaye xam naa ne ma nga ca boromam ma ngay xol ba àgg ci yàlla àgg ci njëm gi yónneen parce que ñu sopp ko soppi lépp muy boromam lépp sëriñ Tuubaa du doyal yàlla ku dul sëriñ Tuubaa da ngay doyal yàlla inna allaha maana ah. bëgg gi bëgg yàlla amul fa ñëpp ahbabtu rabbal alamin ahbabtu rabbal alamin maa amin wal amin wal xaada zikru amin لي كان كان لي واد الفدي دابا واخا خلو لو غير عوض قصيده بما كاي تودمي نيخ دي موماي جا باسكا دوكو دان سوكر لم مي يديو مار دوكو دان بيرو نان والتاكسي عند الانبياء والرسل خير من ديم سكر العسل دوكو سوكر لم نيو سما خسدي دا عمي حبيبي تاعو mahal xal xalaawa bi ñuy draay la da nga day xës yi daan neex daa am pili bu dul yàlla jeeg yooyu sax daa am pili si bu ci neex daa am bu ci neex bu ci neex waccal kitaabati ilallahi ahab min kulli xattin wa ilallahi ahab waaw yàlla ci boppam daa bëgg téere yi waccal kalaami raasidan wa mursidan wa fikrati nawir wa xabi arsida wa salli yaa latif wal tusallim ala nabi wa rasul sallam wal tuf bi haddika qadim wasrifi li xayrihi maasaa huwa yansarifi wa hablahu lutfan jamilan wa loxoo mën a doxo bi xëy rax bi wasrif bi jaahi lu mu taqaalil umma iqaasan takfir asawal xumma laysa li ummati nabi si waaka yaa waaye nag ak sartali jadd waaka daa neex awaa riime nga xam ne du mbëkk sëriñ bi du mbëkk du mbartan daa nan xam ne sëriñ Tuubaa dàq woy ci àdduna moo dàq riime ci àdduna hmm. parce que arabam yi mësee su koo gis moo jaaxal arab yi ba lii de. te. moo waral nañ ko doyloo nam ne ko kàtt yi ñu jàpp ko te bañ ko yemale dara. ah. lu ne wax na lu ne wax na ko ku jollu ba nii dootoo jom ñeete ñun suñ tubaab jomoon na ko yàgg. maa hmm? la ko wax defal lu lépp buñ ko yegg nan ko sant rek nan naan ko yaafi na rek ku mën a jóge fenn loo am am xam-xam nan naan jërëjëfe borom بوينيام نعم. يعني من بركة أمين آه، بركة خادم الرسول خادم الرسول الله لكن دي جولي في بعمر مخف بسكة تبينه واللي يهدون النور يستغو ومن كان ومن كان نافع عن بريدا لا يقطعه ليه دي جولي ريك تلو تخل لا بني طيب. لا موي دوا لا يقطعه لا وخ أبدا أبدا أكثر مدا مومي تكوم أن محمد سيري مرين دوبي جسم كويتريسي تاني أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي أجنان تي تي كم خم يدي دي دي غدوم غاي كي كاولاني خامني رك تيري خام خام dañ ciy tegtaloo di baax di ci digle lu bon di ci bàyyi di di di ci déglu di ci digle lu baax di ci bàyyi loo nit ki lu bon. Mm-hmm. waaye nag téere yi daa am leneen luy ndey téere yi. mooy la mooy Serigne Touba yi ndey téere yi téere yëpp ci ëpp dama doon mm-hmm. na ko ber waay yéen nee na yàlla ma ber man biiroo sama bopp de yàlla tamit mu ma jiital bu kenn wax ak man bu leen ma xarab xarab leen kii. antal mu xaddi mu xaddi min hunaa wa xalan xalaa kasiir min al axyaar du man de nii la hmm. bi muy wax ñàkk dee gi daa wax nii loxo yi dañuy du man de. lamtan nii muqaddamaatul mawt. wa hmm. qad rafa'tu nee na nag sama loxo ca kaw kon ginnaaw yàlla ma ko may bil baqaa'i sawti hmm. dama koy yittilal ca kaw. kon bukkumaat bukkumaat ñuy dee. waaw dëgg la mawtul la si ne kaabadoor yi badal. min mawti nafsi maa naxaani jadal. nee na ko waroon ñi ko bëggoon a rey. nee yàlla daal jël deewam ñooñu weccaxtaan ak dem lañ jël doy kaxtaan ko dem ñu ko bañ moom tuñ na si ne kaabu doon yu banal bi doy kaxtaane loolu am problème deenam ba jeex beneen xaat bee fi des mooy ñu ko bañ di yàq digënté 27 ak ñent téeméeri at manam 1927 ba ñent téeméeri at néna na dafa ak jalbu li jagn ak li xëc ci loxom la ne maa la ko wax إذا طلبت من إليه جلبا وإن سرفت Mm-hmm. isa tarabtu min ilahi jalaba mm-hmm. waaye wa in saraftu min ilahi salaba mm-hmm. bu ñoddee mu ñëw léegi-léegi bu jañee mu dem léegi-léegi suñu waa jéemata àndal nee na bu leen dem de ñëw leen ci sama ginnaaw boo leen demee doo leen yegg de na sa ali walay sa min nii yan si la wax wa inna nii bii himan wa mafsaun ñëw leen ci sama ginnaaw rek làqu ma wax ak moom kii maa mën a wax ak kii ma gis seen tubaab rek xam ne <laughs> xam yàlla xam yàlla ak xam nga koy jaar ak xam ni mu yelloo ak ak ab yonente xoolal yonente bi ñun ñu koy tagg rek boo waree wax daana kaamil usman ab dahab wa asnabul mufallaj wa askanul mubtahi wala wajhu mahliquma oh. wa huwa akmalul wara sayyiduna lay wax de xam-xam waaw li ko waxal yonente bi ci ay xeet baax a baax nga lànk ne aw ñooñu duñ ko waxal ay baax baax hmm. parce que la bu mu kenn de hmm. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul amul morom nee na waaye am na tur yoo xam ne waa suufa kawam am na tur yoo xam ne waa kaw ko xam. Ah. waaw. da doon ci yeneen bi ci yeneen bi. ndax ñii am na ñuy wax yeneen bi Ahmadou. ñii di ko wax Muhammad ñii di ko wax Abdul Muhayminu ñii di wax Abdul Jabbar ñii di wax Abdul Xafaar. non la ko ba buy dugg ba buy dugg aj ba buy dugg ajana ba buy dugg ajana Abdul Karim lay tudd. waaw la Sëñ Tuubaa nag ay tur. Mhm. <laughs> boo boo boo dégg mu yaqulu Abdullahi wa huwa Ahmadu xaddimu man sumaatuhu Muhammadu waaw. <laughs> waaw. آه، يقول عبد الله هاي يعني الجميل عالمنا أهمل حاملنا محمولنا معمل وجه للأمانة دون خوف كل تفكر أن تتابع قال سنتو بارك لك يا رب قمونا سنتو بارك بكم دا يا كم تدق نك تكويسة واو لك لك دخل عليا كم تلوال دق دق تكويسة تبدو يا يالا تيجي دن دن بيك دا دا بقول خم بقول ما نعم جم جسم بكم bu nu kenn xaala bu nu kenn xiila nan ñu wax sëriñ bi nee na rek ñu gëm man moom sëñ Tuubaa nee na laa mën a gëm sëñ Tuubaa nee na ndax nag moom lan xam buñ demaat feneen fu mën a dem buñ ñëwee nii sëñ Muntaxaa def dajal réew yëpp ci xam-xam jël sëriñ Tuubaa teg ko feer xam ne kenn mënu ko kenn kenn mënu ko faafe suñu jàmbaar ji yàlla fi yàgg téwér sagal nanu kii te moo fi ëpp xam-xam réew mi ko ko fi ëpp xam-xam seen sàmbay moo bu ma jagee kenn ma mën a gàggante muy almuntaqa li xayrin taxaa bil muntaqa kullu si saqaa wayen huudi yi ndax yi sahidu noo suutuka xam dëgg ak i fen xam ne ay naam xam xaqiqa xam sariha mooy sëriñ Mouhamadou Mountakha ah. ku ñëw mu def ni boppam te fees dal bu waxee sëriñ Tuubaa yaramam jëmmam ji sax dootu ko mën a téye ñëpp di jooy ci moom moo waral ma ne baar baa ngi te kaw te kenn dootu ko wàccee baal ba dem na waaw a illahu kalimatullahi yéen xoliya bu mu laal suuf turu yàlla bi waaye xanaa ñun ñoo bëgg yàlla rek xam nga ne ay jumaa murid yee ko ëppale ci àddina xamal nga loolu ay jumaa fu ñuy jaamoo yàlla murid yee ko ëppale ci àddina ci Sénégal julli ci Seydina Muhammad tamit murid yee ko ëpp lu muy def waaw tiin uruufaka jamii salawaat xalal na bi yaa mujiba daxawaat am na fu mu xam waxee sax ne am fu mu misaale ne daa gis mu laaj boromam xataa laa ab xaasara xataa laa ab xaasara daa daa daa am damay karbat diiwan la daa am fu waxee ne sax julli yi war a julli ci rënd bi nee nee na daa dañ koo misaal comme ay magasin mu laaj boromam ne ko damaa dugg nga yi mel ma di julli ci rasul bi ci misaal mu julli lépp mu jeex mu ne damaa bëgg ñu wan ma fi ñuy sëlmali mu sëlmal lépp mu jeex waaw déet waay xamoo ne ñun ñooy nabi ñun ñoo gën a bëgg Seydina Muhammad ci kaw li ñuy julli ci ren ku koy julli sept tonnes cinq cent te loolu li ko tubaab yi yóbbul la tubaab yi tubaab yi tey ko ci seen xam-xam lan lii mooy sept tonnes cinq cent fi ne boo demee ci dalaa elul dalaa elul xayraat deux cent ñaar téeméeri tur ak benn ah. moo fa nekk ci yonent bi. am na ko salli maxa taslimi bi dala ilo xayra léegi nag boo ñëwee. Mhm. boo ñëwee. Mm-hmm. sanat waaw léegi nag boo ñëwee ci muxaddimatul xidma 787 turu yonent bi indi na ko fa. gis naa muus muus. naas naas. Ah. مير مير لكن ما حلاف راج كبير ما هو يوخ وهو البشير والنصير ها واحد دي دوك دي جيم ني ني سين ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني شنو مرا دام شيخ تو مدي بام خادم يو ري تاي موم ديغا زياره كاملو سيغ توباي مو خمو دا تاي مو ما كان ميتير دي <laughs> يا الله كاملو شيخ تو مدي بام خادم يا تاي موم دينكو زيار لا اله مورا ما يروح نيني في نيه ñun jéegatuñ ci xam na rasulullahi am nañ fi ko sunub sëriñ teg demal na ñoo ëpp lu ñuy julli ci rente bi waaye salli salaatan tam la ustama loolu ni ma neex nee na nag wooyu dëkk laa ñuy bisra nee na ci xol xam nga léeg-léeg nga wax ni tër du dugg ci xol waaw nee na boo demee ci rente bi wooyu dëkk laa ñuy bisra fii xal bi nabi suuri ku li ak xal bi waaj bi nabi xol ba ma ngay neex yi muy julli ci moom day neexal yonente bi yonente bi xolam da ciy neex waaw li ne salli salaatan tam la ustama wal arda يا من خادلين إن مع مع السلام يرتقي للحرس ويملأ الكرسي ياسر الفرسي ياسر الفرسي ويدخل البتران وعينا في خلق النبي دار يوم تبي من في خلق النبي مليا وعينا سرور سرور سرور كل أقرب النبي هل النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والعمد يا ربنا صلي صلاة فائقة كل صلاة برئيس اللائقة ها كل صلاه كل صلاه اي صلاه الفاتحه صلاه الامي صلاه النبي هم كل اقرب من اجل على النبي المنتقى محمد واله وصحبه وعمره وتنبديه إلى عصيم قوله منورا يا ذا العلا والتر وتوقت تم بلا هيو يا عالم الساهل والخيو ولا يبقى كونك اللي فيه وفي سواه ده يوندر ولا يبقى كونك اللي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وسفيري حقائبي وقولي وعمري وقلقي يا عوني واجهتني بالأجر والسلام إلى جنانك وبالسرعي وتم جاهل متقع حياتي حياتي وجعل حياتي بشرا للملتقى في اله وسلمه سن التقى قصاي تمي الجم دي يوب نيت تيا سن تو خم غني خش دي دي تي مان دا خلو خم ني دخنت لو خم ني نيت مان نا باجا دم دار دي جاغي خصاي ليغي سلل الجم مل كو دم دار دي دف دي دي نيا نعم. دي نيا مالكو كسد دا فوق ديال day defar nit day dindi nit ci ak rëy di ko indi ci ak teem bi. ci wax te kenn di dund bu ñu ko tey jullit seen maam day tax sa dund tey. sallallahu ala muhammadin yëpp dama rek demal ci muxadamatul xidma yëpp dugg sekk rek sa ku seen tubaab ku doy waar dama koo gis damaa gis. ci àll yàlla ne bismillahi rahmaani rahim alam nasrah laka sadraka wa wadahna anka wisraka lisi am qad saaraka wa rafahna laka sikraka fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran fa izaa faragta fansab wa ilaa rabbika farghab ubbeekaay ci alam nasra la commencé ca lay Sëñ Tuubaa day jël alam nasra du koo jël ba téye ko duggal ko ci biir Mexique daal di ko ci daal di ko ci dëkk nga la def xam nga fan fan la mm. war fax li man bihaa yusalli zikra واجبر له القاتل واطرح صدره على النفر اللي مع كل جيب ومسكر لا لمن بها يذل نكو ام كوي ديف براسا تريس وارفع لمن بها يذل الذكر واجبر له القاتل واطرح صدره على النصر دوغنا بو واو دكو يوت رك على النصر على النصر وبيكاي سنتو با دي جيل مود مود لay jël mbuut sirru lay jël waaw ak déggoo mu ne adduna bi sirru bi daal malaka ni rahman ñu ne ko doon mu mu ne sirru dunia sirru bi laa yor waaw sirru la yor moom moom moom du yor te fii kulli zayin zahiran wa batina wal fax bihi yaa maliki mawatina lay wax cay sëñ Tuba kenn du moom xasaytam yi xasaytam yi mu ngi من من معجزات المنتخب هذا ده واخ من معجز أما فينا لو كان خروف معجزات أخرى ما خير خيرات مسلم لولو لا بيك الدقرة خير خيرات لا يا إلهي الله وخير خيرات لا بيك الدقرة خير خيرات لا بيك الدقرة وخير خيرات لولو مسلم تلا تلا بعض الله تلا وهبي يا جونا بيكون سيكون في الدفع والجلبة بخير آفة وخير سلامنا في أبد ولي مهدي يخلي ولي السفر مالكي أنفاسي يا كافر أهدى وجه فاسد دقل يا خير المنسلين وخير الراسخ يا حارسي يا منسلي يا راسخ كنا تي أفسر كا جانجل خسني سنتلاي كون دقل جنا برجي بنا بكاتلي خون أفسر أفسر نبي nga xool lu wax sunu borom ak wax ko Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ak ñi fi yàlla yónnee. menn moom daal lañ déggagul mu ni sama xasida yi dañ koy jàng biir àjjana. waaw wajaxalha mi ma tataxana biha hurul hin. min ahli shukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wa salaam. waaw waaw mbir mi moom dafaa ne. Mhm. dafaa nekk te adduna jeexagul. te mbir ya day daw ña ngi koy jàng mbir nañ ko ca pilier muy daw. Hmm? nee na day daw rek mbir mi daal nee na day daw taxawul te boo léegi tey bu dëgg nekkee ci kaw yi fen nee na mbir ma du taxaw. فلاه بفضل الله في لوحه جاء داي داوي وتعالى هذا الاهل شكر دغرا كي ما يدين سمخ بيانو عور العين والولدان في الجنه التي ولم تقوم وتعالى من اهل الشكر اليك عليه اليك او اليه عليه الصلاه والسلام دون بسم الله ينور هائي بلا مناهي ولا انتهاء آه، الله اللي قرا نمو سيبي نان ني تامي تي بوكال ني بوكال وو واو دينا دي سيرن توبا ديكو فوك بارلا اني اله من شرك ومن ba noppi dul ay nafiq kulli nifaaqi wa saradati damin texe ji dañ koo tàmpale rek moo waral ñu koy wax. ci ndeysaan. jox na ñu ndékki jox ñu añ jox ñu reer loolu bu subaa da ngeen ndékki nan am yàqin yàqin xilmul yàqin. loolu suñ loolu suñ daxa naan nan am yàqin ci sëriñ bi. yàlla na nu ko yar defal. kii mooy sécurité sëriñ bi waaye sécurité boo ci nekkee kaaraange bi ngay am kaaraange sécurité lay doon parce que moom lañ sécurité. waaw. waaw. موم كي بوبم ننسك حديث في الاحد على تران بالنبي واهل بدر من كلام النجيب منا علي بالدخول الساكنة في حسنك العسل منهم عامنا لم كبير سن جبا ام سيكريتي ام كخت ادنا والاخر في حسنك العسل منهم عامنا امين بارك الله فيك التي تحسن من امين من كل من منهم يعني عجيب فجأة امين تخلنا في لما يعني ndeysaan may digal moom fa xam Moussa yàlla noonu ànd ak Xaadimu Rasuul te tàggoog Moussa da ngeen jëf murid yëpp kontaan